comme ni nga xam ne noonu lañ ko daan defee rek mooy ñëw dugg ci biir jumaa ji xaar imaam dugg si ñu déglu bayaan yi déglu euh, xutba yi àndandook ñoom julli bu ñu noppee nag toog waxtaanee archive jumaa ji incha allahu taala ànd koog Ibou si Baye kon Ibou dañuy dugg ci jumaa ji rek xaar imaam ñëw ak nit ñi ñu tàmbali liggéey bi incha allah. wa fi llahi haqqa jihadihi ayyuha al-ikhwa wal akhawat جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادعو الله لي لكي أكون مستجاب الدعوة ادعو الله لي لأكون مستجاب الدعوة أنتم تعلمون أن الدعاء الإنسان إذا كان مستجابا انتهت مشاكله فكل ما يسأل الله سبحانه وتعالى الله الله سبحانه وتعالى يعطيه ولكن اسمعوا إلى رد رسول الله قال له بالحرف الواحد أطب مطعمك وأطب مشربك أي kullama tudxiluhu fi batnika falyakun hada alshay xalalan tayiban mubaraka ayuha alixwa walaxawat hadihi alamwal kulluha sanatrukuha huna wallahi ida dahabta ila almaxakim maza tajid tajid hunaka qadaya ma rasu hadihi alqadaya insan qatala insan li ajli almal إنسان باع عقار أو أرض إنسان لأجل المال أين يوم القيامة أين الحساب هل سنموت وهل سنعيش مرة أخرى وهل سنحاسب أمام الله سبحانه وتعالى أين إيماننا أين عقيدتنا أين فلسفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الغنى غنى النفس irda bima qasama allahu laka takun agna annas hakaza allamana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam أيها الإخوة والأخوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا دعاءنا دائما ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتقبل منا كل العبادات يا رب العالمين اللهم الوهاب عدد منكم جبلا bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaar leen nu ngi ñëw ci suñu émission yowmal juma comme niñ ko daan defee rek julli ba noppi toogandoog waa juma ji tey nag ñu ñëw fii ci eh, tëngéej këri suuf di jumaa ji jëkk ci tëngéej ñu fekk fi itam ay notable waaye ñu fekk fi ay kilifa fekk fi ay imam fekk fi itam suñu xarit imam baamar nga xam ni tabaarakallaahu soppe la ci nun wóllëre la ci nun imam fekk fi imam tayiru mu def bayaan bu am solo boo xam naa dañ koy jox sax mu dellu si waat ci ndax yooyu moo ci gën a am solo mooy xutba bi émission bi lu ko tax a jóg xutba bi lu muy tekki ci olof ñaare ñaare bu ñu xawee rate bayaan bi dañ ci dellu siwaat ci jataay bi euh, bu ko defee itam ñu santaat yàlla rek ci dellu si gi nga xam ni fii mës nañ fi ànd ak kilifa télévision bi muy président Youssou Ndour ba keroog ndeysaan yitte mu fi def yëpp fekke nañu ko euh, waaye loolee lii rek la soxla woon mooy wutal euh, télévision bi émission boo xam ni ci jumaa rek lay dox alhamdulilah ñaanal ngeen ngeen ko ko boobaak léegi lee mu yàgg te boobaak léegi ñun ñi ñoo ko yor kon yàlla na yàlla mottali su ko defee damay jox imaam baamar mu ubbil nu nuyoo rek ñu jox imaam tayru mu dellu dellu sil nu ci bayaan bi su ko defee ñu jox nag euh, magu jàkka ji incha allah loolu nag niñ koy defee mooy fi jàkka ji tàmbalee fi mu toll ak fan lañ ko bëgg a jëmewaat incha allah rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte bu baax ci fii ñu toog ni nga xamante ne boo demee ci àdduna bi yépp seen yaakaar fii la nekk seeni juma la ñu am mooy seeni yaakaar bàyyi nañ seeni kër bàyyi nañ seen lépp daw ñëw ci place bi nga xamante ne fi la ñuy dajee suñu borom subhanahu wa taala kon jotaay bii ñu toog ni jotaay bu neex la ci suñu xol ah ñu am gan nag tey gan ji aju ci wàllu communication te ku ne xam na ne communication dafa am solo ci diine lislaam su fekkoonte ne du communication kon fa nga xamante ne fa la diine wàcc muy makkatal mukarrama du mën a yëgse si ñun ba ñu koy jot communication ak stratégie communication yonent bi sallallahu alayhi wa moo fexe ba mu yëgsi fii tey te yàlla itam namm adduna bi yépp kàddoom jib fa ba ku ko war a dégg dégg ko ku bëgg a topp topp ku bëggul topp nag loolu beneen mbir la suñu mbokk mi nga xamante ne moo nekk suñu ndeyjoor muy El Hadj Ndiaga Seck di kuñ dul présenté ti ci Sénégal di ku am taxawaay gis ngeen léegi fi mu jaar ci kàddu dootuma fa jaaraat mais ni mu ko waxee noonu la demee euh, président yu Ndour ñëw na fii julleek ñun juma ñëw na fi def ne fi ay teranga yu rëy ñun ñoo ko mën a tuddal suñu bopp yow mënoo kaa tudd waaye ñu koy sant di ko gërëm ci loolu euh, tey nag ñu daje fii ak waa jumaa ji maanaam ñun yëgaluñu ko waa jumaa ji parce que dañ doon bañ gàllankoor leen moo tax yëgaluñu ko waaye wax dëgg yàlla suñu leen ko yëgaloon fii yëpp dana dana fees kon ñi nga xamante ne ñoo fi nekk jàkkarlook ñun kii nekk sama càmmoñ mooy El Hadji Imam Tahir Fall di kenn ci juma ji waaye di coordonnateur euh, association des imams et des oulémas fii ci Tëngéej lépp luñ ci def ci activité moom moo koy euh, jiite ba pare nag nekk mu muxadram nekk koo xamante ne dafa yàgg lool ci juma ji lu bëri fi la ko fi fekk lu bëri xam na ko fi lim fi xam ñun xam ñu fi genn walla gi mu contribuer nag ci rayonnement jumaa ji contribuer ci construction jumaa ji dina ci dellu si ci kanam ñu ànd ak suñu baay baay lay Ndiaye moom mi nga xamante ne lépp lu ñu wax ci administration jumaa ji moom mi moo ko amee mu ngi feggee ak El Hadji Daouda moom mi nga xamante ne mag ñi dañ ko wóolu boole ko ci ñi nga xamante ne ñooy imaam yi ñi nekk ci jumaa ji ak kilifa yi nga xamante ne ñoo fi toog nga xam ne contrainte télévision moo tax ñun ñëpp mënuñoo jaar ci seeni tur waaye ñu jégal ñu ko xam ne ñoom ñëpp ci mbir mi la ñu bokk mbir moo gis rek day am ñu koy jiite bi ñu julli sànq kenn rek moo jiite woon kon nag bu ñuy wax itam noonu rek lay demee dañu am ñennat ñu ñu tànn rek ñu wax kon du ma sori torop ñu ngi jox El Hadji Imam Tahir mu dellusi ak ñun ci li nga xamante ne moom la bayaane ak li nga xam ne moom la cof ci xutba bi moom la dégg ci xutba bi mu mën ñu kaa résumer comme ça mu remplacer li nga xamante ne lii moom moo waroon a am parce que imam dafa waroon a ñëw jël xutba bi jël waxtaan yi fi nekk waaye contrainte am kon noonu rek la ñuy mën a doxal imam faltatafaddal mashkuran wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabia hadiyahum ila yawmi diin sunu wax du ci gudd ndaxte daanaka tënk bi imaam Bamar def na ko euh, dañuy rekk euh, attirer attention ci yenn point yoo xam ni dafa am solo moom mooy premièrement jumaa ji nga xam ni fi la toog ginnaaw jumaay Pire moom moo fi mag ci réew mi léegi macha allah euh, li nga xam ni moom la joué ci Tëngéej moom mooy jumaa yi fi nekk yëpp moom moo leen jur kon kii jumaa ja la jumaa la boo xam ni par exemple bu ñu doon wax euh, ci Tëngéej euh, jumaa dañ koy jéem a méngaleeg rek ju ma jële sunu borom subhaanahu wa taala di wax ci alquran inna awala baytin wudia linnaas lalladi bi bakkata mubarakan wa huda lil alamin fihi ayatun bajjinaat maqaamu ibrahim wa man daxalahu kaana amina loolu la ñuy jéem a imagé pour jumaa ji nga xam ni la ñu nekk màkk bële fii moom mooy màkk waate ngeej moom mooy màkk waa Cap-Vert ginnaaw piir léegi ginnaaw loolu macha allah euh, ñu ngi am mbégte ndaxte rahmatullah alayhi Haj Abdul Aziz moom moo rénové li nga xam ni moom moo di jumaa ji yàlla yàlla yërëm ko ci kilifteefu ñi nga xam ni seeni maam aussi ñoom ñoo fi nekkoon muy waa njaayeen yi diwaan Ndiaye ñeen ñoom pratiquement ñoo ñi nga xam ni ñoom ñoo gérer jumaa ji ba fii mu toll yàlla boole ñu ci léegi mag ñu jox ko bi ñu ko mag ñu joxe أيها الذين آمنوا